Euh, yéen ñi nekk ci panel bi yéen a ngi may laaj suma xalaat ci immigration clandestine gis nga ñaari téeméeri nit faatu nañu ci bërki démb ca Nouakchott lu toll ak euh, juróom fukk nit daldi di lab ci géej gi téeméer rek lu topp lañu ñu daal di sauvé gaal gu defoon trois cent personnes ba fii dégguloo gouvernement du Sénégal du président du gouvernement bu yëkkati Kaddu. Monté, de jeunes là pour di dem ci de gi bu rëy placé wa ci ñi nga sommes là pour ci réew mi de di dem ci Jakarta bokk na ci Alcati, yi nga talibi, lu moto Monté, de defuñu lu

tout le monde s'est rendu compte que c'était une c'est une Nous super chérie nañ mon la ci moment ñi président de la république def na kilomètres ak kilomètres di tambal nek un migrant de luxe fu nek mu fa mu ma nga France monté dañu dañuy France dañu loxo France ci au Sénégal dañ koy téggi ana dige yoyu ana waxu français fa ana dañ fi dindi caisse noire bi président di jël di pasar pasare ana luñ ci def ana luñ waxone dañuy rationaliser lu état bi jaare ko ci agence yi ak direction yi wañi ko mais li fi Ablaye wad indi won, Macky Sall ko biñu ñëwé nit ña fa nekkoon rocci ñom ñi fi né dugal seen clientèle politique yegg nañu sax léegi ba ci placer ay papa yaay doom ci biir gouvernement def ko yëfi mbokk tey jii sénégalais yi tey lañu ñu gën a jaaxle tey jii la sénégalais yi gën a am problème moo waral mbëkk mii nga ñi nga gis nit ñi di jëlaat gaal gi di dugg ci géej gi di ci tayle seen bakkan kenn cautionné wu ko mais jaaxle moo tax nit ñi di ko def yaakaar bu tas moo tax nit ñi di def c'est pourquoi j'interpelle le président de la République monsieur le président il faut arrêter ce drame vous avez les moyens bu fekkee ne mënu leen sécuriser suñu géej gi ba ñu bëgg dugg ci géej gi ñu mën leen koo tere kooku bu fekkee mënoo koo def kon suñu pétrole bi ci suñu géej gi mënoo tere tubaab yi ñëw manque ci li ñu soxla yóbbu ko te duñ ci xam dara les Sénégalais sont fatigués les sénégalais aujourd'hui am yakar bo xamné dañu ko téggon ci monsieur le président mo nek di tas parce que da ngeen len waxone projet bi day suñuy mbir da projet bi dina def aljana Sénégal malheureusement projet bi mu ngi bëgg transformer Sénégal Jahalnama. ci ci ñetti wër yi ana kan mo ci gis ne dundam lu ma yéen ñi nga xam ne yéen a doon xeex démb ne ñii nga xam ne dañuy jël alalu réew mi di ko yàq ñooñu la ñu war a xeexal tey jii yéen lañu gis ngeen di pasar pasare alalu réew mi ku mënul woon am billet d'avion nga gis ko tey jii ñu jël alalu réew mi pasar pasare ko ba am ñoo xam ne dañ leen di jox nee na ñooy ay billet ngir ñu dem defi umra ci alalu réew mi mais yamul foofu coow li fan yi mooy sac à main bi soxna si njiitu réew mi yor sac à main boo xam ne ñetti million ci franc CFA lay jar ci jamono joju nit ñi am problème ordonnance nit ñi am problème faju ba tay ngay dégg centre de santé yo xamné amuñu grab ci bir Sénégal ñu wara jël alalu réew mi di ko pasar diko di ko dama né nit ñi ku leen yërem lañu soxla jefe leen xel ci jafé jafé doomu adama yi ñi nga xamné ñoy dugg ci géej gi yaakar wu tas dong mo leen ko yobbe kon jaadu woon na président de la république yëkkati kàddu jëme ci ñoom jaadu woon na gouvernement bi yëkkati kàddu jëme ci ñoom jaadu woon na ñu defal leen deuil national parce que nag ay doomu Sénégal ñoom ñoo ci ëpp bu ñu demee ba ñaari téeméeri nit réer ci géej gi ñu leen di wër kenn mënu leen a gis te biir nañu ñun ne ci téeméeri fan yi daanaka junniy nit réer nañu ci géej gi junni yeneen ñu ngi leen di wër ba tey kenn xamul fu ñu fu ñu nekk c'est important que les sénégalais xamné yakar. biñu bi ci nous serons des sentinelles bu bo ngén demi bu bo dëmm yi génn jëfur bu saga. ñu génn wax bu Manbogan, I don't care Dina wax parce que Sénégal moma Sénégal la gëm de Sénégal mon don mon nek li nga xamné ne duma ci masla ak kenn Pape Alé Niang wax na len deug def na tweet néna len ngeen wax nit ñi deug mais Pape Alé a raison nañu wax nit ñi deug ça veut dire que depuis ñetti wèr waxu len nit ñi way waaye waaye way wax len nit ñi deug réew kenn du ko yor ci ay tiaxan réew kenn du ko yor ci taf yëngal yi réew kenn du ko yor ci fen et loolu la pape alé wax pape alé ñaa nee len génn leen wax nit ñi dëgg nañu génn wax nit ñi dëgg wax leen nit ñi dëgg pour amorcer rupture yi nga xam ne moom ngeen digoon askan wi rupture yi nga xam ne moom ngeen fi waxoon sénégal yépp di ko bàyyi xel jàpp ne yéen bu ngeen ñëwee di ngeen appliquer rupture yooyu ana tey rupture yooyu ay magat yu xabidaas And ak Senghor Abdoujouf, ak Abdou Diouf and ak Ablaye wad and ak traverser Macky Sall tey ñoo ñew nekk sen ay mbotay ñoy ñom di wax cette jeunesse sénégalaise yoon ont wara jaar pour Sénégal du façon magat yenn yi ñom ñoo ñukoy wax du yenn politiciens professionnels yi ñoo ñuko wara wax dañu Sénégalais yi génération dafa wara génération dara warul tax ñu teggi yoon bi nga xamné ne lañu jël nous serons des sentinelles pour vous rappeler vos promesses kon yeen ñi nek ci panel bi and leen ak man bokk leen ci ñi wax ak ñom pour ñu rappeler leen li ñu wara def pour Sénégal gëna bax baax jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci panel bi gis naa Modou Modou Mbaye maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax <laughs> on est ensemble jërëjëf merci.